naam jël rek moo mën a am waaye kenn du ko fàtte te it ñëpp a ñëpp ko gëm lu waaye gëma di gëma di yàlla wala gëma di gëma di leneen gëm na ko xam na ne mi ngay ñëw ca kanam ndax gis na ko gis na ay jeexitam mu mel ne ci sunu suñ jamono dafa ràññi ko lool diw moo fi jële diw diw moo ko gaañ ba ca la doxe wuy ji suñu borom mu mel ne day bëgg doon aw xewit waaye bokk yi bis boobu ku ko dut waajal xam na bisam dina ñëw lu ko neex na ko def àdduna ji ñu nekk ku déglu sa maam ba mu wax la ay maamam danga xam ne ñu bari jóge na fi te ñun ñi dañuy waxtaane ëllëg rek suñu boroom ma wax ci alxuraan ne léppay jeex tàkk fii ci kaw suuf ba mu des jëmmam ji moom kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika dul jalaali am na fu mu waxee tam ne loo fi gis rek lu mu rëy rëy bu dee tabax bu dee tatalaag lu mu mën doon day dem ba far ni aw rëdd kullu shay'in haalikun illa wajha kon boog te ñoo waaj waaj bokk yi faatu walla de du lu ñuy ragal waaye dañ koy waajal ku ko waajalut ragalu ko nag lu ko neex bay boo mu def waaye bisam a ngay ñëw nag dëgg la goo xam ne gii làkk woo dem buñ ko ci tuddee da nga xam ne làkk kii ñuy wax nii du nit làkk woo dem da ci dégg ñu tuddee ko ko tur woo xam ne dangay ngay xam ne kii ñuy wax du nit lu fi nit yàgg-yàgg ak lu mu fi yàggadi yàggadi dana ko def ñaata la nit xam ñoom daa àndal guddeeg bëccëg dawuñ umpante ci dara mu xëy xëy gas ko suul ko ñaata ci aw nit la nit am koo xam ne kii daawuñu tàggoo guddi daawuñu tàggoo bëccëg ñoo doonoon ay waxtandoo ñoom ñaar ñu xëy tàggoo te duutu ko nam te lañ ko xañ mooy dee ñaata nit am ku ko jege lool koo xam ne defoo woon duñ mës a tàggoo mukk ci àdduna ndax jegee mu xëy xëy tàggoo moom lu wér moo tax waykat bi ne ku ne ci àdduna dangay fexe ba def sa yóbbal dangay fexe ba foo jëm yóbbaale ko rek ndax xamoo kañ la la lu lay yóbbu dàpp yóbbaale la ndax nit tëdd na guddi yeewut nit wére dina lool ñépp di ko seeti mu bokk ci ña koy seeti koo xam ne moom day yónneem njaalam naan nañ ko ko jaaleel seeti na ko ci tëraayam waaye kookaa ko jëkk faatu fuuf ndax dara jotu ko moom ba mi ñëw di ko set kon bokk ku ne war nay teg gëtëm lu mu nar a defati moo xam mu jël bant jëm ci nit wala mu jëm gaan jël gànnaay jëm ci jëm ci nit mu bàyyi xel ne bis dina ñëw mu ne xaj di xool te du mën a xef làmmiñ bi ne ci gémmiñ gi di mel ca na meloon te du mën a wax benn baat bokk yi wër ko xool rek lañ ci man ñi naan jàng leen lii ñi naan jàng leen laa kuñ am ci moom yaakaar dem wooyi ko lu muy mujj wax ka ci ëpp aw fit gën ca réyum xel ëpp ca sago inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek wala mu a laa ilaha illa ju xumb kon boog bis dana ñëw nit nekk fam nekk malakul mawti dikkal ko wax ak ruuxam gi nga xam ne mooy tàggoog moom ñu ne di diw nekkatu fi am na ñaar yu muy jëfandikoo léeg-léeg mu ne ayatuha nafsu tayiba uxruji ila maxfirati min allahi wa ridwan yow roowu gii nga xam ne boroom pas-pas bu wér la amoon digganteem ak sunu boroom di ko jëfe ci ay cëram di ko wax ci làmmiñam ba ñu koy dégg dégg ko ña koy gis xam ko génnal ndànk ànd ak man dem bu ci wàjj yëg dara day wax ba yàgg mu ne cal ñu ñëw fekk mu fa waaye nag ku ne war naa fex ba bokk ca am na geneen gu malakul mawt geneen weneen waxin gu malakul mawti di jële ruuxu waaj yaa ayatu ayatuha nafsul xabiisa uxruji uxruji ila saxatin min allahi wa gadab yow ruu gi nga xam ne yow ruu génnal ci jëmm ju tilim ji ju taq ji borom pas-pas bu ñaaw bii boroom cër yi nga xam ne làgg na ci defi caaxaan neel roseet mu të malakul mawtu jàppale ko boppam xëcc ko tànk ya tàmbalee sedd guy ndax roog a nekkatu ca mu dox jëm ca tànk ca ca ca yeel ya jëm ca wóom ya jëm ca teppax ya jëm ca lupp ya jëm ca ndigg la lu mu romb rek jeex na moom du duutu jógaat wet gu mu di ko fu xulli mu fees dell fépp bokk yi nag loolu moom ku ko xalaatul lu ko neex mën na ko def ci kaw suuf si kenn ku ci nekk nag moo mën a waajal boppam ba buy dikk dajeeg ayyatuha nafsu tayyibatu uxruji ila magfirati min allahi wa ridwan yàlla insha allah boole ñu xam ne kenn ku ci nekk tey jii taxatut muy wut añub démb añub suba la nit ñiy wut waaye wutuñu añub démb moom weesu na ndékki sax boo ko tàjjalee nit waxtu wii dana ko niru waaye nekkatul waxtoom weesu na kenn ku nekk nag la mu góob moom lay lam bay lay góob kenn ku nekk fam kër-kër yi ba tabax ko ca lay dëkk muy fii ak faa nag kenn ku nekk buy teel xëy di liggéey yi di kër-kër yi lañ koy fay ba weer dee moo ko tax kon weer kon ñëwagul te la ca kanam nag mu ëpp fuuf weer wu dee bokk yi faatu moom lu tax nekkuk dëggam kay mënatu koo werante jël na ñoo xam ne ñoo ma gën fuuf gën ñépp waaye ki gën ñëpp muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko fi jële am na yu bari yu ca aju Seydina Omar Seydina Abu Bakar kenn ku ci nekk ba bis ba jotee am na lu mu wax loo xam ne ñu ko ciy fàttaliku ba léegi ci xam ne lii lu wér wér la lu dëggu la dee moo fi jële woroom xam-xam ya ñuy dégg yépp moo fi jële wóor ya ñuy dégg yépp moo fi jële waroom alal ya ñu daan jële na fi ba jële fi xale boo xam ne sax defagul dara moom la suñu changé bi wax ci téere mbanaan mag day dee gone di dee góor di dee jigéen di dee ku dul mag du ndaw du góor du jigéen di dee ndax fekk nañ ba tàyyi ci biirub jigéen loo xam ne dañu dundatut te jotagut a ñëw àdduna kon ku dul góor du jigéen du mag du ndaw di dee lu wér la bu fekkente ne nag la ko tàmbalee ci sallallahu alayhi wa tegu ca saxaaba yu mag ya tegu ca woroom xam-xam ya ak awliya ya laqsaab ya ak axwaas yépp kenn ku ci nekk la ko taxoon di xëye ko gont mooy di waajal sakratul mawut ak la ca topp ñun nuñ ca war a def ñun ñi nga xam ne duñ ñan waaye suñu borom ay waxam mën naa guddee waaye du a àll dañuy wax ne koo koo ko yónni ci sab noon ku yónni yàlla ci sab noon danga ko danga ko nekk mu ko yàkkamti la ko waral mooy yàlla day yàkkamtiwul dara waxoon na bu yàgg ne suuf si li kii dal nit ñi fa mu dal leen ci ndax nit ñee ko yàq te lu waay gàtt-gàtt aw fan da nga gis yàqute gi li li mu wàññi nit ñi zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaasi liyudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun dana danañ ko mos ku defoon ak ku defut ñëpp danañ ko maase mos bokk yi suñu boroom moo nu bind moo nu sàkk yàq gi gën a rëy gi ñu yàq suuf si mooy fii moom àtteeb suñu boroom du fi dox moo taxit àtteeb lu fi dox xel xel daa am fa muy yem saa su ne ñu ne lii mënta sa dox léegi nañ ko soppiwaat ba mu des alxuraan mu ne woon wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuu wa naqsi min al amwali wal anfusi walthamarat yàlla dana leen nott ci yàq gi ngeen yàq yàq suuf si tegg ay atteem teg nee teg pas-pas bi mu ne mooy pas-pas teg nee wottee ko ay xalaat dana leen nattu ba ku ne dana ko yëg xawf mooy insécurité kenn ku ci nekk buy génn ku taseel day ñaan yàlla kii romb ko ci jàmm ak salaam moom it muy ñaan kii romb ko ci jàmm ndax xamul ku doon ak xamul lu ko tax a jóg muy xawf kenn ku ne ragal moroomam lu ko waral wal jiw jiw boo gisul nit ñi dee ci mbedd mi ndax xiif bu metti it njëg yi day kawe ba nga xam ne du ñépp koy mën a am wala boog lu ñu bay du ñor mel nañ ko bëgg wal xawf bi shay min al xawf wal juu wa naqsi min al amwal kenn ku ci nekk mën naa xool ba xam lam amoon daaw su ko amaatee ren jii dana ca mën a am lam ca manoon a am daawam anfus mooy dee yu gaaw dee yu bette na ko jam na ko gaañ rek wa samaraat saa su ne ngay dégg bu ñu amaatoon ñaari taw ñaari taw ku ko mën a am benn genn wàllu taw sax kenn mënu ko am ku yàlla kon bokk yàlla kenn mënu ko wuutu ci nun te ñoo delluwaat ci moom ñamaat ko ba xam gis nga bokk yi réew yi nga xam ne lu néew néew ña nga teg seen tànk ci àttee sunu borom yi dangay teg fii sa yëf dem julli yi ñëwaat fekk ko fa loolu amoon na jamono yonent bi sallallahu diine def leen a defaroon a defar ba nga xam ne kenn ku ci nekk da ngay moytu sa moroom ci lan jële ci moom bàkkaar jël alalam te joxulu ko joggi mbubam te te jéggalu woo ko xool ko bët boo ko wër te xool te jéggalu woo ko di ko yóbbaale ndax lan waajale ko sakratul mawt waaye suñ ne atte yi yépp ki ko doon atte da cay juum te ñoom liñ dut xam daa bari ku ci gëmmentu képp fàtte nga ataay ja nga kafe nga doon naan ga nga tegoon ci taaba ji di naan mën nga def ni ba fël ko mu daal fa xamu woon ne ma nga waxuma la nag tëdd si kër nelaw boo nelawee moom lay dox ci kaw lal bi sax doo ko yëg kooku nag mënunoo mënuta wuutu yàlla ci noonu nañ delluwaat ci suñu borom jël ay àtteem réew yooyu may wax bari na ci yu wuteeg suñuy réew lool kenn ku ci nekk bu defee nit lu mu ko war def day taxaw naa ko baal ma ba mu ne ko baal naa la mu door a ndax xam na ne bu ko kalaamee cee lam ko teg danañ ko ko teg foofu rek mooy am loolu rek mooy am jàmm am yàlla nee na woon wa kayfa yuhakkimuunaka wa indahum tawritu fiha la ni ñuy ñëw di laaj lii nu ñu ciy génne te fekk téere bii atte na ko ba noppi waaye atte yoo xam ne ay xel kese la xel moom fu fii fii rek saa su nekk ñaata yoon lañ dégg dañuy soppiwaat atte bii ndax jamono laajatu ba mu des alxuraan kon boog foofu doy naa yem sëkk suuf si yàqu na nit ñee ko yàq ñoo wëlbati nam doon doxe bëgg mu doxee neneen yàlla ne ayca dem leen su fekkee maa ngeen koo jëmale fenn fuur fa ma ko jëmale woon ay ayca leen yéen ngoog mu ngoog mu des ci suñuy loxo ku jaax la jox sa moroom ñenn ña moom bu ñu naree bu ñu xamee dañ ko nar a teg seen loxo dañ leen ko fa daan yël bandik daw bàyyi fa nit ña xam ne mënuñ ci dara waaye réew mi moom ka jëkk wax ne nañ dindi ku rey ñu rey ko loolu àq ji ko lislaam bi topp ba faw la du ko jéggal mu mboolem ñi rey it te duñ leen àtte ci yoon it ci ci yoon woowu yit yàlla dafay lay ak ñoom ëllëg xawma tuub gu ñu tuub ba yàlla ma leen koo jéggal waaye yàlla daa juum lañ wax fii yàlla dese juum rek lañ wax yàlla nañu ci yàlla mos ci kaddu gi ma ko waxee yàlla da cee jumla lañu wax rek ndax lii ak laa ak ak ak day teg yu kenn ay lay yu kenn mënut a xam lu mu doon ña ñi wut seen ngërëm yoruñ ngërëm ñoom ñoom dañ daje foo xam ne ku ne bëgg nga ma yërmande sunu borom loolu rek mooy dellu si wat jàmm am mbokk yi de moom nag waajtaayu ab jullit bu mu koy waajal mooy teg tànkam ci diine te bañ koo wàcc fexe ba buy ñëw lu mu ko bett bett mu am pas-pas bu dëgër waaye bokk na ci li tax nit du ko fàtte it saa bu ñu ne diw faatu na soo ko mënee nga dem gunge ji ko gunge googu yàlla du ko neena ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fekkee julle ga am nga nàngam ku fekkee denc ga am nga ñaar ñaar yoo xam ne bañ ko laajee nu mu toll dane toll na ni doj wi nekk ci wetu Madina bu jabalu Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci ku ñuy wax euh, Buraydatu bnul Husayb al aslami mu ne yonent bi nee na man maa ne leen woon bu kenn demate ci armeel yi waaye dee leen ca dem léegi xadis boobu am na ci Tirmisi dolli ca ne su ngeen cay dem daf leen di fàttali dee waaye bokk yi ana ku armeel di fàttali dee koo xam ne kii bu duggee ci armeel ya mi ngi yor téléphone am di di di filmer ma nga yor téléphone am di woote ma ngi yor téléphone am su wax su yëf yi nar yàgg tuuti mu sàqi lu ko armée yi jariñ ki muy jariñ kay moo xam ne moo mooy koo xam ne ña war a ñëw suñ ñëwee bay wax lañuy wax xol yépp tooy ñey jooy di jooy ñey tiit tiit waaye su fekkee léegi dem ci armeel yi ku la dàq sañsa la ku la dàq wata la kenn fëste yi ne dox benn jéego sax dañuy dem a dem ba sës rëkk wàcc àgg suuf kese kooku armeel yi fàttaliwu ko dara xol ba wow na nañu delluwaat ci àtte suñu borom yi àtte ko ca li ma wax lee kum lënt mooy dafa nekk anna nafsa bi nafs ku rey nañ ko rey wala ayna bil ayn ku toj bëtum nit nañ toj bëtam wala anfa bil anf ku toj bakkanum nit nañ toj bakkanam wala udna bil udna ku dagg noppum nit nañ dagg noppam wa sinna bi sinn ku damm bëñum nit nañ damm bëñam wal juruha qisaas ku jam nit dëggoo ci moom lenn lu may da nga koo jam su munti jéggale nañ xool fam ko jam ñu jam fa ko fa lu ñuy toll waaye loolu yomb na yal na yàlla dafa dëgg tepp te musul seytaane nekk bakkam ndax seytaane mooy koo xam ne kii inna seytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa inna naka li wér tey wér inna fekk day xabaar inna seytaana lakum aduwwun inna seytaana lakum lakum yéen ñi yéen nit ñi aduwun lakum waaye lakum ji mu moo ci yéeme lool du dañ ba faw am noonu lay doon fattaxidu aduwa jàppe leen ko seenum noonu seytaane nag gëj naa wàcc ci jëmmam waaye daa am mbooloo mu ko fi nekkal moo xam ne kenn du def lu baax kenn du ne diine kenn du ne charia charia moom boo ko tuddee day mel ni ay day bëgg a nekk mburuy sarax te moo ne atteb charia moo gën a maandu ci atte yi rey gi ñuy wax nii bu ma bëggutoon dugg ci lu gën a yaatu du tëb tëb rey dañuy ñëw kalaame ko mu ne nañ wooy ay bokkam moom mu doonatut ku ñuy laaj kii rey lu ngeen ci xam bu bokk yee ne jégal nañ ko charia toppatu ko dara su bokk yee ne nañu jox diya nañu jox nangam nangam te charia tëral na ko ba noppi dañuy seeti askan wi ñi mbokkal geño bañ xam seenub lim walla ñu xam ca lu bari ku ne joxe nànkam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee nañ ci moom mu ne taallamu min ansaabikum ma tasluna kenn ku nekk na fexe ak xame ay bokkam ndax ëllëg a tax lislaam waajal na lépp su defee bokk yépp suñ munta daj ñu dem ci bokki ndey xanaa ñooñu bala ñoo jeex ci suñ jamono ak niñ doon niñ jaxasooyee xanaa moom dana war a am lu mu joxe waaye nag suñ nee bëgguñu alal te duñ ko jéggal du tax ñoo nañ ko rey fi saa su de dañuy xool njaboot gi benn par benn di laaj ba xam mbooloo maa taxoon ngeen wax la waaw wala déet kon gaawi wut noonu niñ ko ragalee demewu na te am na ñoo xam ne nag loolu doo nga gën ci ñoom jërta diisoo am na ñoo xam ne nekk ci kaw suuf di dox képp bu ñu reyut kenn it ña ngay yàq suuf si fu ñu jóg rek yàqu na la ma jublu ci yàq ki mooy lu ñu fi gën a yàgg yàq gën a yaatu waaye ni ko jàppe sharia day rey ñaata yoon lañ dégg mu rey ñu tuumaal ko ko tuumaal ku ko wax ñu tuumaal la ku ko wax sax ñu ne lii ak laa ak laa ak laa waaye luñ ca wax sharia rek sharia wax nañ ko lu ko raw fuuf ndax wax nañ ñu gën ñu ñu gën fuuf in hada illa sihrun mub illa saahirun kaddaab saahirun kazaab ñaata ñaata yoon lañ ko wax ab yonent inna la nazunnaka min alkaadibin ñaata lañ ko wax ab yonent bal nazunnukum kaadibin ñaata yoon lañ ko wax ab yonent kon kuñ ko wax du safe yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin